ci wàlloo di ab dëkkaan bu bokk ci commune bu wàkk nguuna ci département bu Nioro ñu sanc ko ci atub 1894 askan ba fa dëkkee di jooy courant ndax dëkk ya ñu dendool yépp am nañ ba mu des ñoom fii tund wi ñun rek ñoo fi des ci wàllu courant dëkk yi ñu wër yëpp am na courant Karamading naan nii la ñu féetee Kër Matar Fatou nii Kër Assane Diassé nii i deux kilomètres yi un kilomètre cinq cent léegi ñoom ñëpp am nañ courant te ñun amuñ courant te dañuy fay lempo pour ñoom lan moo tax mënuñ ñoo indi courant bi ni ñu ko indilee ñooñu ñàkk courant bi yóbbee na leen ñàkk karange bu taratar dox ay kilomètres ngir wol wala soq dugub ak yeneen yu ñu bëggoon def te mënuñ ko am nañ xale yoo xam ne gis nga leen dañuy wallu ji bés bu yàlla sàkk noonu lañ leen yenee suñu wàll ñuy dem di wallu ji suñu suñ guddee suñ xel du dem ñu am jeexi joxe joxee téléphone léegi la ñu agressé la nangu suñu téléphone suñuy jeunes ñu ngi nii am na si ñoo xam ne am nañ métier yoo xam ne donc mënoon nañoo toog fii dëkk bi di ko fi defee te da gis ne kat amuñ ko. dem na sax ba seen école bi nga xamante ni moo njëkk ci tund wi kenn nangootu fa jàngalee ndax ñàkkub courant dëkk bi tey mën naa la wax ne ñaari enseignant moo fi nekk depuis quatre ans ñu ngi bind demande pour enseignant bu renforcer yeneen enseignant yooyu mënuñ bu doon doxee bañ ko jëlee toxal oustaz boobu ba léegi mënu ñoo joxaat beneen oustaz yeneen yi nga xamante ni sof nañ ko ci doxum ñaxtu bi ñu doon amal la mooy di sàkku ñu defalal leen seen case santé bi poste de santé waaye tamit yoon yu baax soxla nañ ko fa jigéen bu matoo fii dañ koy takkal seret daj daj daji ba saabu yo wala ñu dem ba Kër Tafa xam nga ne loolu dansé la bugg nañ carte de santé bugg nañ yoon bu nawet jotee pour ñu génn ci dëkk bi war a ñu dugg ci dëkk bi problème laay do oto bi du jaar sax ci biir dëkk bi dañuy takk ay sere da ko fekk fa mu nekk ñoom askan wi yeewoo ci dëkk bi gis ni dañ leen doye dal waral ñu amal doxub ñaxtu boobu ngir àggale kàddu gi fa ñu bëgg yéen waay Walfadjri yebaluñu leen dañ leen yónni su fekkee mënuñu ñoo indi courant élection TV, toujours au service de la population. Contactez-nous sur ce numéro 77 552 50 94.